li ñu ci mën a dimbali nag mooy ñu wan ko ne ko ñun njaboot lañu yow yaay sunu kilifa ñun jaam lañu yaay sunu borom ñun dañoo néew doole yaa bari doole la ko Cheikh Al Mali waxoon ne ko ki ci bunt bi soxla la di la ñaan ci sa jaadaam la to ne ko kii di abdun dalilun faqirun xaashiun wajilun doo jazain asifun yàllaahu ku ku ku ku mënul dara amul dara attanul dara du dara ci sa kanam moo sukk bëgg laa yaakaar mag ñi noonu lañ daan def mais pal kenn ko tiitaroo pal du ca bàkku mënul du ko tiitaroo ca bàkku da nga war war a bàkk yàlla tiital yow Pape gi ci nommé gi ñu la nommé directeur général bu Sud FM parce que am nañu la jiitu est-ce que mën ngaa def luñ defut tiital ndax fi nga fekk rajo bi mën nga ko yóbbu fu feneen tiital ndax emploi yi mën nga leen gérer mais tiital pap su ko defee nag nga bàkk sa borom wa afdalul ulumi bil itlaaqi tawxidu rabbina ala ittifaq nee na ñëpp a ci d'accord ñëpp a d'accord Serigne Touba nee moom wuute amut foo dem ñëpp a ne xam-xam bi gën ci xam-xam yi ba ca gën mooy tawxiid tawxiid mooy lu ñëw nga delloo ko yàlla wéetal yàlla yàlla rek a fi ji nga yi ñuy coow corona bi kërti kërti yeeg yëpp bu yàlla taxawul dara du sotti man maa la ko wax Pape gi te xam nga ko loolu bañ a jàng ak bañ a jàng ci yam yàlla bu taxawul dara dara dara du sotti muy cancer bi muy sida bi muy sibiru bi muy soj mi muy ñàkk gi muy jaaxle gi muy lépp nag ak sa magasin boobu fees nga tëye jaarle saafara bu ni nga diwoo ko lu ne nga jàng ko ti ba tey amoo ñu jënd da ngay xam ne yàllaa kale santal ci may gim la may marchandise mu yëg ne sant nga mu kàllarti ñiy jënd dugg si yàlla kenn du ko foye dem nit ko am fayda lañ dul foye waxuma la ak sunu borom waaye dem moom lañ dul foye waxuma la ak sama borom kon nañ dellu ci yàlla wéetal sunu borom lu ñëw ngeen ko yow wa illallahi turjaul umuur yàlla nee na paqueté leen lépp delloo ma ko budul man du kenn gis nga sëriñ boo fi gis ci réew mi sëriñ si yépp laa ko ku ci ne am nga feebar boo nekkal loo ca man ñii màgget nañu luñ ca man ñii bët naqadina loo ca man am na ñoo xam ne dox dox ba neexatul loo ca man waa ki fi indi la Cheikh Al Hadj Mali waxoon nee na karaw gu ñuul kukku nga xëy seetu mu weex tàll nee na war ngaa tiit xam ni ki fi indi lu ñuul jëlee ko fi indi lu weex bala pare ci bijjaaw indi perkaal nga wuy ji sa borom loo nekkee woon ci sumu jëf kook yow. gaa yi dellu leen ci seen borom te ngeen bàyyi seen morom gis nga Pape. nit koo gis mu ànd ak nit boppam a ko fa téye maa la wax lii man Iran benn def ma ne waa Iran yow daal da nga amoo conseil wala amuloo staff bu dëgër ma ne ko lan mooy staff. medd medd tan tan la waxaa na na toog ndax staff dañ koy seeñu mais staff bi lay wër wala conseil yi wër Haroun bu ñu yaakaar ci Haroun na dara. c'est ça le problème mais ki nga xam ne yaa koy yaa koy yaa koy jox lépp bëgg koy def sa conseil mais kii du la wax lu lay naqari ba dootu dootu dootu loo ko defal li nga ko daan defal mag ñi dañ daan ànd ak ñu suur fees dell ak leer ci yàlla ñu toog diisoo waxtaan Cheikh Al Hadj Malick bi ko tubaab bi laajee ne ko dañu bëggoon xam luy dunde yow sa sëkk rek mbooloo mi la wër mu ne ah man de ñett rek laa fi nekkee tool yi daara ji jàkk ji sama ngànnaay nag lii la génne kurus wi ni ko lii de weesuma ko tool yi ci lay xëy pour bay lu ma dundee ndax góor su bëggee moom boppam day dundee ñaqam jàkk ji ci lay jaamoo sama borom daara ji lay jàngal ñi ma topp lii de laa fi nekkee ñu tënk ko ci jajju ba ja ju ba jàng jaamu yàlla bay dundee as gor boo bëggee libéré sa bopp nit mooy libéré boppam kenn du ko libéré Mohamed si su bëggee libéré boppam lu sagaru Jakarta di xëy di daw lu mu ca foraatu añ bu añee tëdd nelaw tranquille mais ku wéeru ci doom aadama ñu foye la danañ la wax looloo bëggul la wax def looloo loo bëggu la def par par looloo la saaga looloo ko warta saaga ndax weccet ak it yaa fi ne jaru ko baab xam nga luy dëgg tii dëgg mooy nañu bokk dellu ci sunu borom Cheikhul Khadim nag nee na tawxiid mooy sangu xam-xam Pape Gueye lu xew nga ne yàlla salaire yi de yéex na yàlla yaa ngi yuuxu foofu de waaw yàlla lu ñëw nga delloo ko sunu borom mais fi mu ne lu ñëw lu xew Pape Gueye ngi nii ndiggi leen ndombo gi ma ci gis sa ndombo gi sa ndiggi laa ko Pape gi mu takk bi ci yi ci ne te bu ko fàttee day wàññeeku jëli ko te bëri na ci morom am nit dana dem ba gaaras dellu këram baa mu téléphone ne <laughs> ndomb googu ma wékk indil ma ko pour moom bu ndomb gi demul day dee mais ñun fu ñu jëm pa pap fan la ñu jëm pexi njibar pexi njibar pexi njibar du sotti nañ dellu ci yàlla nañu dellu ci yàlla ku la ne man naa dara day wax lu ko neex kenn man mooy yàlla ku man moo la man loo su ko neexee ci man-man ba Pape Gueye man la ma manoon ba ma gënee ne xale mënuma ko léegi yow mii noonu Adja Bintu noonu ci bis bu ne da ngay gën a tële nit bis bu xëyee di gën a tële ki la joxoon tal muy moo koy dindi jox la tële kenn fi ne mooy sunu borom sëñ Tuubaa ni dellu liin ci tawxiid te mooy ngeen wéetal seen borom tawxiidu rabbina ala ittifaaqi en amul xilaaf ittifaax la ñëpp ci dëppoo boo deelee ne yàlla boo ñàkkee ne yàlla soo jaaxlee ne yàlla mag ngi dañ daan def boo jaaxlee ñu la demal nga jàpp julli ñaari ràkka ti nga ñëw wuy sima nga ñëw ñu ne la defal astaghfirullah soixante-dix fois juróom-ñaar fukki yoon jiital faati tëje ko salaatu ala nabi nga ñaan yàlla mu jéggal la ti nga def ko addee yonent bi soo jógee lépp situation yëpp changé pap xoolal Eh, dégg gum nga dem gum man ci gum laay dox nag dégg gum nga ñoom oustaz Harouna woote baaw naan jàkk yow dégg gum nga Harouna woote gum ngeen wàcc kaamil pour mu taw mu ngi taw de am déet mu ngi taw a gum bi Macky bàyyi lépp arrêté pom yi na door paa amul Thiès na door paa amul Tamba na door paa amul na ñépp door lañ wax bu ma fi déggati sabar bu ma fi déggati mbalax bu ma fi déggati caaxaan yàlla ne ko danga xam nag fi mu ne taw baa ngi tuuru kenn wàccewul kaamil kenn baaw naanul na continuer loolu loolooy faral li ci des mu bàyyi ko mais caaxaan la ñuy la ñuy bàyyi dëgg mu dox caaxaan la ñuy freiné dëgg mu doxi soxlaam ndax dëggay dimbali nit caaxaan baaxul pecc mi fi nekkoon tegal la chaise ñëpp wër la ngay wangeetu tama ji tiim la yàlla sëpp la ngay fecc ba tas sa yàlla ne ah mais non ok bale nag man ñu baaw naan ba dee wàcce kaamil ba dee yàlla téye ndox fi mu ne nii bi may ñëw laa naan Ousmane ki may àndal Ousmane chauffeur ma ne ko xoolal àll yàlla mooy buur mu ne ah ma ne ko bërki démb ni àll bi mel ak ni mu werte tey ñax mi bëri yàlla change situation tawu ko nañ nit ñi dellu ci yàlla àll boo dem lépp a ngi verte Pape Gueye lépp a ngi tooy ko ko def bërki démb mu ngi mu ñax maa ngi woowoon te àll bi tooy na kon boo bëggee situation bu changé da ngay dellu ci kiy change situation mooy sunu borom voilà da ngay dellu ci kiy change situation yan yàlla na saxal feebar yi nga xam ne yéen a koy tudd yëpp yan na ko yàlla dellu fa mu jóge woon te bàyyi nit ñu nekk seen jàmm ci kattanam ak mbaaxam. acca xam nga ñu ngi nekkoon oustaz ci wàllu tawxiid li ci Cheikh al Xadim wax wax la Cheikh Al malik ak tubaab yi biñ ko laajee daf na ñett rek. moom la soxla bërëb bu mu def jàkka bërëb bu muy tuuree ñaqam bërëb bu muy jàngalee ñi ko topp ndax nee na ala kulli matbuin dalalatu taabi Maodo nee na sëriñ bu mu mën a doon li la war mooy nga jàngal taalibe yi la topp moo la war waaw sëriñ bu jàngul nu muy jàngalee baab ku jàngoo feroo yi ji xamoo tus koy jàngal koy jàngal ngeen ne Cheikh El Hadj Malick jot mu ni la fayal ku leen jàngal dama gis oustaz Haroun nga fay ko mu ne ci daara ci jàngale ngeen ne Seydi Hadj Malick aw jotu jàngale aw lu ma fayee jàngale kën mu ne jëral jikko chauffeur ñu ne ko luy jikko chauffeur mu ne day jël juróomi client Dakar war leen yóbbu Touba ñëw ba Thiès amul lu ko yokk. ti bu demee Touba mën na perte mm-hmm. cinq clients yi mm-hmm. arrange wu mm-hmm. mu gis sëfoor bu am quinze clients mu yàkkal ko cinquam ya mu ne yàkkale leen taal taalibe yi gannaaw jàngalewu leen sëriñ su bëri dañoo war a yàkkale de moom yéen a xam ah, ah muy dëgg ñu bëgg lu yomb rek ñoo bëgg lu yomb maam Cheikh Ibrahim Ñas Cheikhul Islam nee na mooy ki jàng ba xam yàlla yàlla ñor ko mu jóg uuti yàlla taalibi ñëw bëgg a xam yàlla ni sëriñ bi topp ci kaw sëriñ bi nee na kii sëriñ la kii taalibi la waaye ku ferul icc sëriñ bu jàngul xamul dara ci yàlla nga ñëw ànd ak moom nee na sëriñ newu fa taalibe newu fa buur ak daga fa ne moo bëri moo bëri neexul nag mm-hmm. ah neexul il faut ñu jéppi la mais moo bëri nag waaw loolu rekk fi bëri mais bu ñuy wax vrai sëriñ mooy ki la jàngal. Mhm. c'est ça il faut ñu nangu loolu. Mhm. waaye lii lii lii góor gi jàngale maam Cheikh El Khadim mhm. buñ ko amaloon noonu fu ñu koy jàngee. léegi-léegi nag réew mi nga gis ñu jóg rek pour pour déstabiliser sëriñ mais doo dem parce que lii nga jàng te génnoo Sénégal. génnoo Sénégal nga jàng ko xam ko joxe woo ba fayoo loolu noo koo fay moo tax gis nga Maodo loolu la waxoon nee na soo bëggee gore xam nga mooy moom sa bopp da ngay digg ñu leen diw ni mu ñàkkee ngor baat baat bi nag paap da nga xamoo ko bambara nga xam nga luy loolu diw amul ci ngor dara maanaam amul ci liberté dara ngor mooy liberté Iran amul ci liberté dara mm-hmm. ngi di gars yi bi day buñ amee buñ gisee xaalis di mm-hmm. muy abidu zil mali mm-hmm. ci ci ibnu duraydi am na ñoo xam ni euh, alal mooy seen buur moo leen coloniser def leen jaam ñii garambu bu yu des ñii parfum yu des ñii mag sëriñ bi ànd mooy seen moo leen coloniser. Mm-hmm. pour ñoom buñ àndul ak moom rek alko nanu mm-hmm. dafa fekk li war a jiitu ci yow jiituwul parce que jom fu mu ne. Mm-hmm. borom du doyati. jom fu mu ne borom du doye di maa ngi koy wax rek ci Ablaye mbay Selmax mm. ma ne leen bëri na njàccaar yu mel ni Pape Gueye mm. yori bët yu ñu xott xott Pape Pape fii mu toog bët yaa ngi xool Tamba ngi gis ponkal yoo xam ne dara dalu leen seen yaay bu xëyee du ndékki bu añ jotee du ñu añ seen yaay ngi ci marché bay jaay seen rakka fay jaar jël wecce bi dem dugg marché ay yaboy togg mbaxal yow nga ni ponk lum lëng lëngeeral kii di Selmax mm. yaayam wax ci gémmiñam ne musumaa xam ne lu naqari am na mm-hmm. musumaa xam ne lu métti am na mm-hmm. bi Ablaay faatoo laa koy doog a xam mm-hmm. te muy selma kon njàccaari rus nañu man xam naa ko ne njàccaari nañu tax jom mooy farata gis nga nit mooy libéré boppam ku ñu coloniser rek yow la neex colonisateur bi kenn la mooy sunu borom